comité électoral départemental bu Benno Bokk Yaakaar bu Bambey samp nañ ko El Hadj Abdoulaye Dia moom mooy coordinateur ba. képp kuy kilifa ba ci allié yi ñëpp ñoo bokk ndey bokk bay tànn ma ma jiite comité électoral départemental de Bambey bu Benno Bokk Yaakaar loolu nag soo ko gisee ne nekkul sama njàmbaar waaye kóolute. yi maire yi taxaw am ci man yi président conseil départemental Bambey bii am ci man li Ousseynou kase DG am ci man li ministre Mongom ak kilifa yi ngànk département am ci man dina tax ma gën a sama taxawaay dina tax ma gën a góorgóorlu ci sama doxalin fédéré doomu département bi yëpp ñi fi nekk ak ñi nekk bitim réew ñu am benn carte ba nga xam ne di soir du 25 février 2024 dañ koy sottil sumbal ko notre candidat Amadou Ba. moom mii de sax mu ngi xamle ne dina dugg fépp ci biir Bambey dajale njaboot ak benn Benno ko Yaakaar. ñii nga xam ne ñoo ŋànk département bi suñ ma jiitalee li ma war mooy seeti doomu Bambey yëpp quartier en quartier maison en maison village en village amoo en amoo dinaa dugg fépp ànd ak góor yu baax yii. ba Amadou Ba am ndam fii ci Sénégal. li jëm si élection yi nga xam ne ñu ngi laam-laamee dañ koy randal moom nee na Benno Bokk Yaakaar diwaanu Bambey ñoom day pare nan ñun li ñu nekk gis nga ko aujourd'hui des milliers de Bambayois des milliers de filles et fils de Bambey se sont mobilisés ñëpp nekk benn say topp ci ginnaaw euh, nootu kànd Amadou Ba ñu dañoo jàpp ne Amadou Ba élection yi dimanche lay tàmbale dañoo jàpp ne bu ñu demee Amadou Ba mooy am dam foofu laa mën a yem lay xaw Ndakaaru nag mënu ko fee lijjanti la may lijjanti mooy ci Bambey gii ànd kilifa yu mag yii pare nañ pour gagner pour gagner Amadou maire yu bëri teewe woon ndaje ma ak responsable yi ñoom de la ñu bëgg rek ñoom ñoo di coalition benn Bokk Yaakaar gañe ci département bu Bambey tax na nag ki nga xam ne moom moo di El Hadj Abdoulaye ñu wóolu ko dénk ko lengaya ngir mu doxal ci département bi